dina dinay nas ab programme ànd ci ak CESAC ak Bloomberg Media Initiative Africa ngir rek mën a yokk limub taskatu xibaar yi tàggat leen waaye itam ci càmbar wàllum koppar ci anam gu ànd ak xarañteef jëm si xayma ay xibaar ci dendu Afrique. c'est extrêmement li ñuy def nii am na solo trop parce que ñun ñi nga xamante ne dañuy yëngu si mbirum finance dañoo bëgg rek bu ñuy joxe xibaar mi nga xamante ne dafa jëm si wàll yi mu nekk xibaar bu déggu te nag ñëpp mu siy jot comme ni mu waxee te li ni mel nag xibaar mi nga xamante ne xam-xamam màcc na si wàll wi rek moo ko war a def. certifié qui le tàggatu nag ñeel njëriñu askan wi dina mën a may taskatu xibaar yi ñu am jumtukaay yi leen di may ñu segg rek wàllum koom ak mbirum politique. lii nii day tax ñu jàppale journalistes yi ñu mën a comprendre lii di langage économie ndax ñi ci bari dañuy jànkoonteel ay jafe-jafe ngir rekk mën a joxe xibaar bi ni waree. dañu war ko amal si app bu tolloog juróom benn weer bi lépp tàggat dina rek laaj ab taxawaay bu mat sëkk jëm ci teewlu waaye itam jot gu mat sëkk. Euh, dina gën a ñoŋal liggéeyu journaliste yi. parce que am nañ module yoo xamante ne lépp loo soxla ci xam-xam pour def sa métier ci journalisme finance journalisme économie di ko fekk formation bi nag ci juróom benn weer lay am weer bu nekk dañuy jël benn semaine semaine bu nekk dañ ciy jël ñaar wala ñetti fan def formation bi li ñuy tuddee présentiel. ñi nga xamante ne ñoo financé formation bi dañu nañu candidat boo xamante ne manqué nga benn bés dootoo mën a continuer formation bi. lu jëm ci wàllum koom dafay rek soxal teg ab kóolute ci diggante état ak askanam boole ci presse bi nag dana mën a tax ba taskatu xibaar yi di mën a jot ci xibaar yi ba mën see joxe seeni xalaat ci anam gu jaar yoon. tàggat gi itam dana rek mën a tax ñu xeex lépp lu jëm ci joxe xibaar gu wérul ñeel ay chiffres ba mën a nasaxal xelu askan wi.